yoon wi yoon wi dëgg la sëñ yoon wi dëgg la waaye nan dalal sunum xel ca fëjjële sunuy laxasaay sëñ Ablaye yoon wi dëgg de.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 ah di sant rek bu baax a baax di jaajëfal bu baax ak boole suñu cant yëpp ak i ngërëm di sant maam Serigne Fall mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal fii ñu taxaw ci liggéey bi suñ tubaab bii wala ñoo def dara nag ñu ñaan seen Fall mi suñ Modou Mbenda yàlla na borom yàggal bu baax te wéral ko li mu naan lépp ngir bëgg ko liggéeyal maam Serigne Fall mu def ko ni mu ko soobee ñaan ak moom sàkku mbétam du mu taxaa suñ borom yàggal seen dund wéral ko itam li mu bëgg liggéeyal suñ tubaab lépp mu def ko ni mu ko soobee ñaan ko moom di sant suñ bunt coon yi suñ mbàkki faam suñ munda mi nga xam ne mooy jëruñu kër gi ñaan suñ borom ñoo dal taw feex baax may ko ngërëm yàlla sax dàkk defal ko kilifa mi jiitu defal ko kilifa mi fi ko ñu def ñëpp barke maam Cheikh di siyaar sëñ Cheikh Fall ndigal moom sëñ Cheikh Baye góor nga xam ne mooy kilifa kër gi yëpp nag te mbooloo mi tax de mbooloom ñu fi nga fekk ñu fi ñu tax ak sëñ Cheikh Baye góor mi moom sëñ Cheikh Modou moom sëñ Cheikh Baye góor Saliou Ndiaye mii di jëwlu na sëriñ bi itam nekk ci Europe mu di fa liggéeyal maam Serigne Fall liggéey bu takk bu ñëpp xam benn fanu safar nag di ndigal loo xam ne Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko joxe fekk fii ndigal Serigne Touba loo xam ne bu saa bu jubsee ñuy bale dëkk bi di ko setal loolu nag moom la san jotuk maam Serigne Fall gépp tey di benn fan bi waaye koo gisa koo gisut tam bokk ci Serigne Fall xamal ne mi ngi ci waar wi njaboot gépp ñu ngi ci biir waar wi dëkk bi nag dafa rëy te yaatu moo tax k ko yaa ngi ci wenn waar barab fekk nag sëñ bi dañoo boole ak sëñ Cheikh Mbacké antango na moom sëñ Cheikh Abdou góor moo jiite mbale mi tey jii ñu nekk ci ginnaawam yàlla dafa dogal nag mu ngi duggee ci côté ko sëñ baara gi ñun ñu nekk ci boori armée nii di jël mbayit mi waaye benn liggéey bi la mooy jëriñ ji itam moom la sëñ bi wax ñu topp ci ginnaawam nekk nekk moom liggéey bi nañu ko gisee noonu la demee sëñ Tuubaa daal li mu digle mooy ñu seetal dëkk bi balaa maal génn waaye sëñ Muntaxa nag déggoon naa wax ci lamiñam ni li gën a gaaw a àggale nit ci yàlla ci murit daal mooy tudd yàlla setal dëkk bi baleen dëkk bi nag na nga xam ne sëñ Moussa Mbacke moo ko njëkkoon def ci Touba wax nañ ne ba mu koy def mbubam la tàllaloon di far ay mbuus di def ci yére boppam yi ngir setal dëkk bi kon loolu na ku ci sàmpam bool feex la joo xam ni yàlla nañ ko xam ba jariñoo ko waaye na liggéeyam day àggu ci sëñ bi du liggéeyloo comme nota fay koo gis mu di ko liggéeyloo nar na koo fay waaye na njaboot gépp ñu ngi tënkandoo ci baatum digal boobu àndandoo ci liggéey bi di ko def ngir maam Seex Faal liggéey bi nag bokk ci faw yii day am nit nag dafay teew ak jëmmam mbaa mu teew ak alalam mbaa mu teew ak xelam mbaa xolam yooyu yëpp suñu da koy fay yàlla na seen na nag ñi teew ña nga xam ne ñoo nekk ci ci boppi kër yi te tam nekk ci yenn gox yi te nekk leen fi lépp yàlla na sa boom dool yiw yëpp wàcc ci ñoom jëm si ci ñun te ñu bokk ko ni ko war bokkee waaye liggéey bi daal Baye Fall tàmbali nañ ko duñ ko bàyyi nag feek àggul mbaa njël baatum digal ndax Cheikh Rafal moom lu ko suñu taa digal dina ko def loolu ku ne xam na ko loolu nag mooy ndigal li ñu ngi bale daal tàmbali nañ ko tey ji ñu ngi ñaan ci baaxu maam Cheikh nag yàlla nañu dimbali ban àggale ko jàmm te benn ndog bañ cee am te kenn ko defee ko ni ko bëggee te sëñ bi itam lam dël ku bale yàlla buñ ci dara ump barakati maam Cheikh Ba mu diin jërëjëf tarkal laa ilaaha yoon wi yoon wi dëgg la Cheikh Ablaye Cheikh Ablaye nan dalal sunu xel ca fajjil sunu laxasaay Cheikh Ablaye yoon wi dëgg de.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 donc donc sëñ Falilou kàddu yu bàyyi ko ci suñ kilifa gu baax ga muy sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda Fall di jëwriñu maam Cheikh Ibra Fall ji di ko jaarale ci kàddu jëwriñ ji nag sëriñ Cheikh Fall Ndiaye Mbeng yëkkati kàddu yu yoo xam ne ak kàddu yu cant ak kàddu ngërëm ci liggéey bii ñuy liggéeyal sëriñ Touba ñu di ko yëg leen ndigal lii mu jox murit yëpp ñu tàmbali ko tey jii nag ñu ñëw ànd ko ñun kon sëriñ baa ngi sant bu baax ciy gër waaye di jaarale kàddu yoo xam nag moo ko bàyyi koo ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké muy ndigalu sëriñ Touba lii muy mbalem Touba muy buub Touba mooy setal Touba sëñ bi nag nee na ndigal moom nee na mi nga sant jëfe ko woote bi it kaay leen jëlal sëñ Falilu wax de waaye du lu nuy maye du lu nuy saraxe diisu ko able nee na li mu daal Serigne Touba mënal nanu ko. bëgg koo defal nag moo tax mu nuy liggéeyloo. ndax bu doon lu muy may la. kon nu ko fekk de. kon may na ko sunu maam yi bu yàgg. ba suñu bàyyi waaye lii nag Serigne Touba yor lu nuy jaay la te ku lu ci waay jënd yàq moom nee du ci abal kenn it nag waaye lépp lu ci waay bëgg na nga ñëw fas ko ci liggéey bi liggéey bi nag tàmbali nañ ko tey jii bu àggee baax na bu àggul it subaa ak jàmm ñu xëyaat waaye sëriñ bi nag nee na Cheikh Fallou nee na sëriñ ngi woo ku sa yaakaar na ci Cheikh Ibra Fall nga nekk ci fukki région yi ak ñeent wala nga nekk ca diaspora ba sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp ndax lii kat lu mu yéene ñëpp la te mënul kenn ku nekk mu fekk la fa nga nekk may la ko kon fi ndigal li nekk fa la njariñ li nekk kon ñun ñëpp nan maasa wuy si sëriñ bi def bëggam gii suñ defee bëggam gi sëriñ Tuubaa dina def sunu bëgg kon nee jërë ngeen jëf Assalaamy TV képp kon kuy déglu Lamp Fall Assalaamy TV nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew na nga ñëw ci liggéey bi sëñ bi nee na nag noo ci mën a ñëwee moom baax na koo xam ne am nga am saret ni saret bii taxaw wala nga am oto benn wala nga am bale wala nga am gaasuwaal wala nga am ay xéwal yoo mën a togg indil ko murit yi wala café goo mën a tàngal indil ko murit yi wala gerte caaf goo fi indi lépp loo ci mën a def rek yaa ko moom sa jëf la de te lépp mën naa ñëw nag ndax Serigne Touba jox na nu ko de kon nag koo xam ne mënoo teew ci liggéey bi jéemale teewal sa jëf ci liggéey bi wala nga teewal say xéwal ci liggéey bi waaye kat seetaan day moom ñeeta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 Cheikh Ablaye yoonu dëgg la waaye Ablaye nan dal sunum xel ca fajjil sunu laxasaay Cheikh Ablaye yoonu dëgg la de. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah laa ilaaha illallah. ñu ngi leen di bëggee bu baax si topp gi nga xamante ni yéen ñu ko topp boobaak léegi ñi ngi fii tey ajuma àjjuma 18 août fii ci Touba marché Ocass muy bis bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te jox na ko Serigne Amdi Modou Mende Fall xalif général de Baye Fall yàlla saa borom yàggal. mu ànd koog mboolem Baye Fall yi muy seetal dëkk bi ngir lan lay ko bis bu màgg bi nga xamante ni moom la ñu jublu muy bis bu màggal nga xamante ni. képp koo xamante ni ab jullit nga képp koo xamante ni ab murit nga képp koo xamante ni bëgg nga lu baax bis yi sa bisa moo tax nag Baye Fall yi teel a ñëw tey jii si première safar bi comme ni ñu koy defee at mu jot nga xamante ni sa alaaji baaral la tàmbali woon yàlla na yàlla dolli ngërëmam sëriñ Sidi Moxtaar ñëw feddali ko yal na yàlla dolli ngërëmam Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ñëw wéyal liggéey boobu yàlla na ko yàgg ànd ak moom loole nag day li nga xamante ni liggéey bu rëy la liggéey bi Serigne Mountakha Mbacké ni ñu ko waxee daaw fii si kàddu Serigne Cheikh Abdou Latif mu ni kat mbalem tuubaab bii mooy li gën a gaaw si xol bu set mooy li gën a gaaw si xel mu sell waaye mooy li gën a gaaw si set si bakkaar te Serigne Fallou Fall yàgg ngeen koo dégg mu ni bale mooy baale képp koo xamante ni ñëw na fi suñu borom dana la jéggal say bakkaar te loolee nag mënees na koo xam ci Cheikh Ibrahima Fall. bi muy nekk kër Serigne Bamba bokkoon na ci li nga xamante ni ci liggéeyam mooy buub maanaam bale kër Serigne bi waaye Serigne Modou Aminta Fall bi muy bi lim yi nga xamante ni day may ngërëma yàlla boole na ci li nga xamante ne mooy buub sa kër Serigne ak yesal ko te ñun suñu kër Serigne nag weesul fii nga xamante ne mooy tuubaa Touba gii nag la ñu nekk 8 heures ba léegi Baye Fall yaa ngi fi ni ngeen ko gisee fépp foo xamante ni tund la ci Touba fépp foo xamante ni quartier la fépp foo xamante ni mbalit mi mi ngi fa. Baye Fall yi dem nañ fa tey ànd ko murid nag gis ngeen bi ngay ñëwee marché Ocass yamuñu wax si Baye Fall yi waaye koo xamante ni tey jii mi ngi si marché bi yëkkati na alalam jëf si yëkkati na li nga xamante ne mooy ay xéwalam def ci ñii joxe nañ kafe ñii joxe beñe gis ngeen fii sama ginnaaw mu di yi ngi tàmbale li nga xamante ni mooy xéwali di añi nga xamante ni lii dañ koo ànd ak yëpp te loolu Sëriñ Muntaxa wax na ko ne mbale mii nekkul Baay Faal rek lañ ko jox waaye képp koo xamante ni yaa ngi Touba ci nga bokk loolee nag lañ leen di wan fas yéene ko ànd yéen ngeen dundandoog ñun li xamante ni moo am fii fii nga xamante ni mooy Touba ci mbale mbale mbale mu réy mii nga xamante ni amuñu lu dul moom ñun Baay Faal yi gis ngeen boobaak léegi lépp lu ngeen fi gis ñoom ñoo ko ñoo ñoo ñoo ko fàggul seen bopp bu dee camions yi camions yi mag yu mag yi trente mille lay sol gasoil te gis ngeen day dem ko ñëw saa bu feesee dem kàmb ya gannaaw bàq ya sotti camions yi ndaw yi vingt cinq mille lay lay lay sol bis bu jot xéewal yi nga xamante ni sëriñ si dañ koy dañ koy faggu café yeeg suukar seek ndox meeg yooyu yëpp nga xamante ni si seen i jiba lay jóge ak ñi nga xamante ni mooy taalibe yi rato yi ngeen di gis fourchette yi peel yi mbooleem loo xamante ni day tax liggéey bi gën a dox ñoom ñoo koy faggul seen bopp waaye xaaruñu si kenn lool nag day firndeel ni mbir mi nekkul da ngeen di gis Baay Faal yi yanu euh, tée parla yi naan am dale am dale ngeen jàpp ni loolu rek mooy mbale mi mais am na beneen financement boo xamante ni mi ngi fi bu rëy rëy rëy boo xamante ni ni ma koy faral di wax bu muri di di wàcc di dajale addiya ñii di xotti ngir màggalu Touba ñii di dajale ngir paas Touba ñii di dajale ngir sasu Touba ñoom li ñu am lépp ñu ngi koy xëpp fii di xaar borom Touba te xam ne nag sëriñ bi moo ni ku def sëriñ ku def bëggub sëriñ bi sëriñ bi def sa bëgg kon mbooleem koo xamante ni ñëw na fi mbooleem koo xamante ni yéene woon na fi ak biir réew ak biti réew képp koo xam gis nga lii te bëgg si ndax liggéey bu rafet kat sëñ Moustapha Mbar day wax ni képp ku ko gis muy liggéeyal sëñ bi sa xol feex si bu ñuy fay ña liggéey si woon yéen bokk pay te nag loolu day taw féex joo xamante ni képp koo xamante ni xelam mi fi muy gis lii di bëgg muy gis lii xolam di sedd yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp sëriñ bi bu ñu ko defalee ak bëggam mu def suñuy bëgg muy paj faj suñuy aajo te màggal gi ñu jekk ko bu baax jàngeen ngeen jëf